mbokk yi ni leen ko waxe woon li nga xam ne noonu lañ ko wéyale woon ci suba bi nga xamante def nañ njàngum alxuraan mi wéyal bernde yi sof ci li lépp lu ci war a aju noonu lañ daal di fas yéene ànd ak yéen ginnaaw bu julee takkusaan ba noppi dem ci jotaay bu mag bi nga xam ne amal nañ ko ci biir kër Serigne Abdou Khadre ca mbaar ma muy cérémonie officielle bi gis ngeen kilifa yi noonu gis ngeen Serigne Abdou mbaki Mbacké bu moom mi ngi noonu teew teewal mbooleem ahlu njabootu Serigne Souhaïbou ci turu Serigne Cheikh Seye gis ngeen ko noonu gis ngeen Serigne Moustapha Abdou Khadir teewal na fi njabootu Serigne Abdou Khadir gépp waaye nag gis ngeen Serigne Koso mi nga xam ne moo bàyyikoo ci Serigne Mountakha teewal ko fi teewal fi daaru Minam gépp ànd ak délégation bi ndax gis ngeen ne bis bi ren dañ koo duppee Serigne Bassirou mel na ne jotaay bi yéen a ko gis noonu ëllum Mbàkke kenn desut ëllum bu soobee kenn desut kon ñu dëgtal leen kàddu yu tedd yi nga xam ne bàyyi ko nag jotaay bi ومهتدين كتاب بني كنز وجاه ورفعة ومن يرضي بالقرآن مولاك يهتدي سلام الذي أعطاك يا خير منزل على خير مبعوث إلى الخلق مرسلين عند الله شكرا يزيد ومن بك ينقل الشكر يا ذكر صديق فلاح الذي يدعوك يبقى مقلدا إلى الجنة الحليا بغير تردد يقيني يقيني تركك الدهر يا هدى محى بك ربي دون رد تقدمي رباه الذي يدعوك ربح بشر ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يزعم القدير يقول لي الباقي لتزول آلنا ومن بك يبقي النصر يا سقم شديد وعن المريد والمريدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di nuyu njabootu sëñ Tuubaa gépp tàmbalee ci boroom dëkk bii di Cheikh lu Muxtaar ak mbooleem rakkam yi di siyaare bu baax Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak mbooleem njabootug sëriñ Tubaa gi di leen ndokkeel ci cër bii jógee kër Seexul Xadiim tàbbiwaat kër Seexul Xadiim muy bisub soxra Xadi bii ñu tuddee sëñ Cheikh Mouhamadul Bachir du nuyu Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu Cheikhina Cheikh Abdoul Xaadir di ko siyaare di siyaare bokkam yépp di siyaare soxna Ayda Buso di ko ndokkeel ci bisub waajuram wi soxna siinu daje ngir moom ku jóg ngir moom war ngaa sant yàlla sant sëriñ tubaa ndax am nga tawféex kenn la ci doomi sëriñ tubaa yi bokk ci njabootam gu jigéen te sëriñ bi lu ko yàlla tànnal moo gën lu mu ko tànnalul yàlla tànnal ko sëñ tubaa defal ko ko muy doom mu feeñ ci këram feeñ kër soxna aminta buso bokk ak soxna aminta soxna Maymunatul Kubra mu tedd ma borom ngërëm yu bari ya ak Cheikh Abdul Xaadir mi nga xam ni dafa mas a nekk ci kanamu jaam ñi rek ba ni mu dem soxna Xadijatu fenn jamono atum lasachine muy junni ak ñetti téeméer ak fanweeri at ca gàddaay ga ak booba dëppoog bi Sëriñ Tubaa jóge Jolof nag ba ñëw njaareem mu feeñe fii ci daaru alimul xabiir ci askanu sell woowu nga xam ni muy Mbàkke ak Mbusoobe yàgg nañoo produir lu gërëm loo yàlla akub yonentam soxna si jàng na alxuraan ba mokkal ko bind na alxuraan jàng na xam-xam waaye loolu lépp mi ngi ko def ci fi mu feeñe rek li dal sëñ tubaa rekk ko dal fi ma feeñe rek fi laa feese sëñ tubaa nee na bi ma sama boroom defee may géejit ay géej rek a ma tëbb nee na fees naa dell te wëndeeluwuma ci réew yi di sàkku ji xam-xam soxna si tam gere gi mu bokk rek fi la jànge diggante kër sëñ Masamba Kanni ak sëriñ Mbàkke Buso ba yàlla suñu borom dogal itam mu mat a dem kër li sëñ Tubaa wax ni mooy jihaad yi jigéen muy dem kër foofee mu doon liggéeyee te dëkk fa bokk fa ndeyam dëkk fa itam fa lañ ko yore ba fa la ko yàlla moom ci atam yu néew muy fanweeri at ak ñett ati maamam soxna jaar rek la am ci àdduna waaye ba tey faatuwul ndax ku faatu sa ginnaaw doo mën a dajale mbooloo mu toll nii soxna si bi mu feeñee rek la bokkam yu baax yi nga xam ni yàlla suñu borom moo di def ci moom ay tëjaliyaat xamoon ni xam naa du fi war a yàgg ba ñoom ñëpp ñu profité ci moom ñëpp bëggoon ko ñëpp amoon ci moom cofeel ngir yàlla ak nuru gi mu nur sëñ Tuubaa ak jikkoom ju rafet ndax jikko nag yàlla da koo bàyyee borom kenn ku nekk mënees na laa màggal ngir ngeen a jur waaye diggaale bu rafet nag jikko yu rafet moo koy maye loolu ma sëñ Mbàkke sañ Mourou Moussa mi nga xam ne mooy taawu yoon wi moo ko jëkk a tudde doom muy mi nga xam ne tey bu doon góor dëkk bii mooy doon borom bi muy jigéen it mooy mooy borom ndax ku fi nekk déggoo na ak yow juboo na ak yow di kilifa ak ñëpp ñëpp jox ko wàccuwaay yu mu yor kër goo fi dugg itam soxna xadima ca mag ña la bokk mu jigéen joo xam ne ji musul ni suma doon góor li fanam wi yàgga di yàgga di lu baax lu nit am ci àdduna am na ko te itam àdduna ginnaaw loo fi yàgg-yàgg danga ma sa dem kër bu ne ci lu baax rek ndax walaw ashta alfan summa alfayni baadahu fala budda an tasira yowman ilal xabri bis bii nag delloo nañ ko borom ndax lépp lu bàyyi koo gede wala mu dëkk gede ñu terale ko ku dëkk daaru minam dañoo fedd li jëfi sëñ tubaa rek ndax ki gën ci musoo bee nga ci loxol seex Muhammadul Bachir mu soxna jaara bu so ndeyi sëriñ tubaa kon lépp loo xam ne bàyyi koo te bàyyi koo te ne gede ñu terale ko lu bokk ci sëriñ Basiru dañoo fedd li rek jëfi sañ tubaa jooji sëñ Moustapha sëñ Muntaxa xolam sedd na guy ak njabootam gépp ndax moom lépp lu ñu tudd sëñ tubaa moo ko moom rawate na nag buñ ko ko cëralee soxna xadi yi ci kër yépp ñoo ngi leen ci ndokkeel di leen siyaar di ñaan képp ku teew ci bis bi yàlla na sëñ tubaa faj sa ajo soxna si nag sëñ tubaa moo digle woon nañ ko jox sañ mbàkke kan ni mu jàngal ko bi mu jàngee ba dajal xam-xam yépp ak sañ mbàkke bu itam gere googee fële liggéeyee ñu jox ko sëriñ xasan buso moo ko yor ba am ca njabootam gu tedd googu yàlla leen fi yàlla bàyyi te sun borom jokk leeri sëriñ ahmadou asante taas ñu ci barkeem bis bii rek mooy Touba soxna Xadi ku ko tudd tudd nga xolub tuubaa mooy xolub ñëpp mooy xolub ñëpp bi mu fi nekkee magam yëpp mooy seen xol mooy seen i bët bi mu fi jógee bokk yëpp mooy seen xol yàlla noonu yàlla taas ci barkeem te yàggal fi soxna Ayda wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. léegi la Serigne Cheikh ñëw ànd ak ñun dem ci soxna Ayda mu bég lool waaye ku xool sa doom yi nga feggoon sëriñ Koso. ak Cheikh Abdoul ak njabootu Serigne Moustapha Bachir gi ak Serigne Mountakha dégg lii bu Sara wax léegi nga xam ni sab xol sedd na ndax danaa di gis bu ñu toogee fi Serigne Mountakha bu ñu ko dee yaa ngi ñëw mbégte mi muy am ku toog ak moom da nga xam ne am na mbégte loolu nag li ko def mooy mbàkk sa taxawaay te njaboot gii sëñ Abdou Khadir dem bàyyi leen fi. muy njabootu soxna Xadi soxna Ayda gërëm na la léegi la ko waxal boppam ku xam sëñ Abdou Xaadir xam diggam ak soxna Xadi xam ne ab xaritama nit ku bàyyi ko fii dellu ca yàlla sëñ Abdou Xaadir dana ko yëg yëg yi xol dana ko ñaanal yàlla waaye keroo ba sëñ Ahmadou Boussa Assane wàcceeb liggéey. ku yendoog sëñ Abdou Khadir ci pàkk bi xam nga ni tey am na lu ko diis lu waral loolu mooy njaboot gii soxna Xadi bàyyee ñoom mu wuuf leen bëggul dara lu leen gari kere ba muy ànd ak sëñ Assane Bousso di dem Makka sëñ Assane daanaka la ci ëppoon muy yitteem ba mu des Makka kon sa toogaay bii mooy toogaayu sëriñ Abdou Khadir ndax yaa fi toogal sëriñ Cheikh. sëriñ Cheikh it am xelam dal na ci yow ci fépp foo xam ne fii njabootu sëriñ nekk na fa te nga nekkal ko fa du fa jaar ndax xam na ni boo fa toogee moom nga fa toogal waaye sëriñ bi gërëm sa jarbaat yi Cheikh Abdou Meer toog moom sëñ Mbàkke Faa Jama ak Cheikh Abdoulaat nii sëñ Mbàkke faa jama seen bàyyi seey sëriñ Abdul Xaadir ba jeex ci takk bañ tudde ko bàyyi faalu sëñ Abdul Xaadir ñuy saw xeet waaye nekk ci lu neex yàlla ak seen maam ja kenn gisu leen ci dara loo leen di jàjj loolu doy na sant yàlla am njaboot ñu nekk ci lu neex yàlla ba ñëpp weg leen loolu doy na sant yàlla sëñ Muntaxa nag cant gi am na tàmbali waaye amut fu mu yem kër ak daaru minam du yaari kër genn la yépp moo leen jaboote rek waaye mbir mi ci appel ba bañ ko tàmbalee ba yegg si fii sëriñ Muntaxa jëfe na ci lool ñëpp teg na ci bët ak soxna sooda mu sëñ Moussa Bachir jàmbaar la lool moom itam ñëw na Mbakke ànd ak jigéen ñépp ñëwu si kon Mbakke soxna Xadi Astufaal itam yónnee na nee taxawaay na ci moom itam taxawaay bu am solo nee soxna Xadi mu moom mu Moustapha ak soxna Xadi Sëñ Fallu ñoom itam taxaw nañ ci taxawaay bi yëpp ak turandoo soxna Xadi yëpp ak soxna Xadi Mbàkkeem Sëriñ Baara mu ne kon Mbàkkee ñu leeral la ko ñoom ñëpp taxaw nañ ci taxawaay bu rafet kon sëriñ bi dañoo bëggoon nga ubbi rek. bu ko defee ñaanal bàyyi sëñ Koso jotaay bi nu ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi yéen mbokki taalibe murit yëpp yéen mbokk yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu di tàmbalee nuyoo bi nag ci njabootuk seex Muhammadul Basiir gi fi teew. muy sëñ koso mi ànd ak sëñ Abdul Ahad Mbakke mi ak njabootu Seex Mamadul Basiir yëpp ñu teewal fi Seex Mamadul Muntaxa mi nga xam ne moom may ko tuuti mu tooge noonu ma may ko mu tooge noonu teel taala wa barakaatu yéen bokki jullit yëpp yéen bokk yi fi teew yëpp ci turu sëriñ seexum seex abdul xaadir mbàkke ci turu soxna ayda buso ñu ngi nuyu ñëpp nuyoo ba gën a sell di laral jàmm nag di jagleeli nuyoo bi gën a sell gën a euh, mat ñii nga xam ne ñoo fi teewal suñ mag ju baax ji di seex Muhammadul Muntaxa moom seex Muhammadul Basiir muy sëñ Koso Mbàkke mi ak sëñ Abdul Ahad Mbàkke mi ak njabootu sëñ Basiir gi ñu àndal gépp ñu ngi leen di dalal jàmm di leen di bég bu baax a baax a baax a baax a baax ci ittewoo gi nga xam ne ittewoo nañ bis bi ndax sëñ Muntaxa lépp loo xam ne luñ lu jëm ci sëriñ Tuubaa la ñu cëral ko ci ak ñu bañ ko cee cëral du tee positif ba mu ca war a doxe ak yitte jëm ca war a joxe moom la ciy doxe ndax ku ne xam na ne royukaay la ci ñun ñëpp ci ku bëgguk taalibe royukaay la ci ku ku doxiinu yoon wi ñor royukaay la ci képp koo xam ne li di dëgg dëgg yoon wi itteel na la kon nag ñi ngi bég bu baax a baax a baax a baax ci jagleel gi ñu jagleel Cheikh Mouhamadul Basiir bis bi biñ ko ko jagleel it ñoom it la ciy seen wàll ñu jëf ko ba jëf cee lu kawe seen njort ba kawe jëf cee lu kawe sun ndax ni leen bis bi ittale ni leen bokk gi ci boppam ittale te loola lépp la ko waral mooy gi itteel gu leen Sëñ Tuubaa itteel te lool rek mooy li am njëriñ ndax yëf yi li ci am solo ci noonu mooy watuk sëriñ bi te ñoom ku ci ne xam na ne ñi ngi dundal bu baax a baax a baax a baax ñi ngi ñi ngi dundal bu baax asaalatu yoon wi dara rappiwut ci ñoom kon nag yàlla na yàlla ak sëñ Tuubaa yàggal lii tudde gii boo gisee ñu jagleel ko bokk yi soxna Xadi day koo xam ne yeggut ci àdduna lool waaye nag ko rafetaloon digganteem ak ay magam lañ ndax ñii ñu ko jot a gën a tuddi ñooñu ku ci ne yaa ko mag lu bari muy seex Mamadul Moustapha mi taaw kër gi ku ne xam na ni mu ko magee waaye ku ne xam na niñ xarito woon la ba ba soxna Xadi mii doon ci seere beneen seere benn mooy ci këram la noppaloo moo kër seex Mouhamadul Moustapha la noppaloo ci Daaru Xuddoos suñ Modou Moustapha téye ko fa ba ak wér di fekk ko fa ba mu dem ci kanamam kon digganteem ak moom noonu la firndee woon loolee nag xalaaxa même xalaaxa boobu rek moom la am ak Cheikh Mouhamadoul Lamine am kook Cheikh Mouhamadoul Bassir mi am kook Cheikh Mouhamadoul Fadel am kook bokkam yi ci des yi nga xam ne ñoom la gën a maaseel loolu li ko may mooy mag ñëpp maase nañ ci te suñ sooy bu daa ko seereel lool mooy ku rafet jikko la te mën a defar ku rafetoon jikko la te mën a defar te dara du ñaawi fi moom lool la ko suñ sooy bu daa seereel lu mu fekkee lu ne rek dana ko jagal kon nag loola moo ko may bokkam yëpp bëggoon ko bokkam yëpp soppoon ko kenn ku ne ci yow mu am ci yow ab cër cër boobee moo ko may turandoo yooyu moo ko mel ni may mu dund fanweeri at ak nangam waaye aw turam des fi ba mel ne mi ngi dund ba tey ndax jikko mooy dundal nit jikko mooy li nga xam ne comme ne ci yow deesil deesu la noppee tudd benn yoon te kuñ noppee koo xam ne waxtu wu ne ñu ngi lay tudd rek yaa ngi dund waxtu wu ne moom nag ko nit la koo xam ne jëmm la joo xam ne ñun ñi ñëpp fekkewuñ ko waaye ku ne dégg nga jikkoom ba tax na mel na ne waxtu wu ne mi ngi dund kon nag bi ngeen ñëwee tey jii bis bi ñu jagleel ko Cheikh Mamadou Basir dundal ko dundal ah, baax na bi ngeen dund bi ngeen ti ñëwee tey jii ñu dundal ko ñu tudde ko Cheikh Mamadou Bassir njabootu Cheikh Mamadou Bassir ñëw fi dundal ko dundal bokk gi dundal jege ñaale gi dundal yoon wi loolo suñ suñ mbégtale ñun ñëpp ñu ngi sant mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp nag bàyyiwuñ kenn settewuñ kenn di sant turandoo yëpp nag tàmbalee ko ci soxna mi nga xam ne tey jii li bokk ci sëriñ bi mooy suñ kilifa ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal di sàkku ci moom ñaan ndax moom euh, cërëm bii daf koo ñor lool ba tax na at mu jot moo ñi ci des ñëpp ku ne da nga jëf waaye ginnaaw moo ci mag bu buñ ko tuddee rek tudd na ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di dolliwaat di tëje sant njabootu Cheikh Mamadou Basir ci seenu melo di leen sant ci Eh, nekk gi ñu nekk di roya di royukaay bu baax a baax a baax ci dëgg dëggi lii lii li di yoon wi waaw loolu mu wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax ndax ba tey eh, liy cosaanuk yoon wi wax dëgg dara ràppiwut ci ñoom kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan loolu yàlla ko yàlla jëme kanam Cheikh Mouhamadoul Mountakha it ñi ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ndax yàlla may na ko moom ku mbokkal sëñ Tuubaa ku ne ngay mag ngay magam dama ko jëlale waaye ngay rakkam sax dañuy day wut sëñ Tuubaa ci yow kon nag lool ab royukaay la ab bind la boo xam ne ñun ñii la ko bëgg sax yàlla na nu yàlla dimbale bañ xool loolu te roy ko te jariñu ci wa kullu haamin wa antum bi xeyrin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wax mu dal di wattoo mu dal di fa sëñ daam abdu si sëñ mbàkke kan ko jàngal alxuraan la nu wax mu daal di fa sëñ daam abdu si wax nañ ne bind na ab kaamil bu wow bu rafet jébbal ko seex bamba muy bëgg nag ci soxna xadi seex bamba jox ko nijaayam seyxu mbàkke buso alim bu mag ba ka nekkoon muftiyal baladi mu jàng xam-xam ba am cëb cir ñu jox ko sëriñ asan ku jub ka te sàmmoo sàmm siira sadi sëriñ asan buso laay wax aliman wari an borom tasawuf ja mooy siblun minal asadi foofee la nekk ba am nag soxna faati buso ak seexu ahmadu miñ dul laajte fii bagede foofe la nekk baam nag soxna faati buso ak seexu ahmadu miñ dul laajte fii bagede ak soxna ayda mu baax mi yal na yàlla guddal fanam wi dolli ko ak wér faw sil jëgadi ak soxna ayda mu baax mi yal na yàlla guddal fanam wi dolli ko ak fa ak wér faw fil jëgadi ma wax ci soxna xadéeg jikkoom yu baax yi mu yor ma wax ci soxna xadéeg jikkoom ya mi di roy déglul bu baax li ma lay wax nag mu mel ni mi di doon Seex Bàmba lim réy réy taxul ba mu réy moom daa wayaf mokku néew dër mucc ci matadi daa yaatu am yitte am yit aajo dal lewet te baaxi wax baaxi jëf jaarul ci ak njubadi ku neexa ne kallawaan daawul xuloo kadixul daawul weranteeka soowoog moo soreeg yëgadi xol baa nga set ni weles biiram demel ni kawam ab tab la woon it bu tab gay saf ngelaw rurig di moom daana julleeka jàng def liggéey ya ko war te léegi tëy mooy làmboo musique comédie te bis bu nekk da cay ngéejoo defar ëllëgëm te léegi internet ak appareil ak crédit jigéen ñi roy leen ko moo gën roy ci waa Amérique xool leen ci soxna su baax si jël ci seeni idée jigéen ñi roy leen ko moo gën roy ci waa Amérique jigéen ñi roy leen ko moo gën roy ci waa Amérique xool leen ci soxna su baax si jël ci seeni idée bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi fi teew yëpp maa ngi nuyu bu baax tey ziar di ko tàmbalee ci sunu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo fi teew di ko tàmbalee ci Cheikh Mahamadou Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne bàyyi ko na fi léegi moom Sëñ Abdou Lahad moom Cheikh Chouaib di nuyu bu baax sunu kilifa. sëriñ Sidi mi toog ci sunu wet di ko ziyaare bu baax di ko yóbbante ab ziyaar ci sëriñ Cheikh mi nga xam mooy boroom kër gi di sunu kilifa di sunu sëriñ di sunu xarit di sunu wëllëre di ko nuyu bu baax di ko ziyaar di ko ñaaral yàlla sunu borom tabaaraka wa taala dolli ko ak wér damay ko fan wu gudd gudd ba ab liggéeyam ci yoonu Cheikh ci kër Cheikh Abdoul Khadir gii yàlla may ko ci lam ci bëgg duñu fàtte mukk nag di dolli ñaan ak i dolli ziar suñu kilifa gu baax gi di Cheikh Sil Muxtaar yàlla may ko wér ko fi lool di ziar suñu kilifa Cheikh Mamadou Muntaxa mi nga xam ne moo nu fi yebal ci jataay bii man ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñëpp te mel na ne tey njaboot gi yëpp laa àndal tudd nga ci léegi sëñ Abdoul Ahad moom Cheikh Moustapha Bachir tudd nga ci itam Cheikh Moustapha moom mussa Moussa sëñ Mamor moom sëñ Muntaxa sëñ Abdou Góore moom sëñ Cheikh Astoufal sëriñ Bachir moom Cheikh Abdoul Hakim ak Cheikh Jili mi nga xam ne ci kër gii la way juram dëkk ànd ak rakkam sëñ Modou Xabbaan ci wàllu góor ñi du ñu dong sax bari na lool jigéen ñi itam maa ngi ànd ak soxna Sooda mu ànd ak rakkam yëpp ak sunu doomu bàjjan yëpp ànd ak xolub ña ña des ñëpp itam nga xam ne seen jëmmante teew itam ñoom seen kaw teew na fi bu baax ndax sëriñ bi keroog bi ñu ko waxee bis bi yëgal ko ne ko bisub soxna Xadi la loolu rek doyoon na ci moom. ni nga ko Cheikh Moustapha seere la léegi ne moom jabatu Sëriñ Tuubaa amu ci xejj ak seen te itam lépp loo xam ne ci Sëriñ Tuubaa la jëm ni mu ko waxee ñu doonale ko ca dara ak ñu doonale ko ca dara léegi leeral na ko léegi loolu wax na ko waaye ñu itam gëm nañ ko bu baax a baax bi ñu ko waxee nag ne ko Sëriñ Bassirou lañ ko sédd nag moom sawar na ci lool am ci te lool am ci xol bu sedd lool xam na naka jëkk yëfam la waaye nag rawatina tey moo tax mu woonu nun ñëpp ba ñu ñëw mu jox nu ndigal keroog ca appel ba ba nëgëni si wax nu ne itam nanu ànd ak Cheikh Abdou mii nga xam ne moom la magam di taxawloo liggéey bi sëñ Cheikh xamal ko ne xamal nu ne nanu ànd ak moom ba liggéey bi jeex ni nga xam ne noonu la waree ba ci bisu tey bii loola nag du ca manqué rek fekk na sunu doyadi bopp la waaye fekk na du bëgg-bëggu sëriñ bi du yéene sëriñ bi itam ndigalam lam ca war a joxe joxe na ko ñu itam xëy na amoon nañ yéene jot li ko wala ñu jëfe ko na mu ko bëggee waaye bu fekkente ne am na lu ca des itam dafa fekk ne doye di doomu aadama rek la waaye boo ko teg sunu bëgg-bëgg noo sant yàlla bu baax ci fekke bis bi muy bisub soxna Xadi soxna Ayda mi nga xam ne mooy doomam di ko taxawal di ko ko di ko ci ñaanal ak di ko ci fàttaliku te yéene tiyaaba jooju nga xam ne moom lay am ci fàttaliku gi te moom lay am ci ñaan gi te moom lay am ci sant gi mu ci sant boroomam yéene ko ànd ak jullit ñëpp yéene ko ànd ak taalibe yëpp loolu moo tax mu woote ko ñu di ko ci ñaanal moom itam yàlla may ko wér mu gën fee yàgg lool te li nga xam ne moom lay wut ci bis bi itam sa borom jotali ko ni nga xam ne noonu la ko bëggee mooy njabootam gi nga xam ne ñoom la ko àndal soxna si nag daanaka dellu di wax ci moom mel na ne du ko jar ndax dégg nañ léegi Bouchra Samb wax fi kàddu yu rëy yoo am solo yoo xam ne lu leer la ci dundu soxna si ni mu ñëwee genn ni mu ñëwee jamono ci loxol sëriñ bi ak ni mu ñëwee jamono ak bokk yu baax yi nga xam ne ñoom la ko suñu boroom tabaaraka wa taala tànnal ci loxol Sëriñ Tuubaa nga xam ne lam daan fàggul nit ñu baax ñépp ci baax baaxi bokk defar la saw askan defar càllala gi ba nga xam ne bu dikkee la mu war a mel rek lay mel ci def ko ci saayir door koo def ci baatin loolu baax la ci kër Sëriñ Tuubaa moom nag noonu mu ko noonu nga xam ne noonu la ko nit ñu baax ñépp amee noonu la ko amee moom itam kon du ñu jekk di ci wax lu bari ndax xay na dunduñoo moom yàgg na waaye teewul nag li ñuy dégg ci moom ci lu baax mën nañ cee tegtal bu baax bokkam yi nga xam ni itam ñoom la bokkal Cheikhul Khadim te yàlla dogal ñu nekk fi woon ak ñun yàlla dogal mu gënoon leen ñu gën ko fi yàgg ba lenn ci ñun di jaxasoog ñoom xam nañu ne jikko ji ñu gis ci ñoom ci jikko ju rafet ak jikkoy reyukaay ak jikkoy yaaram ak jikkoy sang ak jikko yi fonk sëñ Tuubaa defar seenu taalibe ak fonk seen lislaam loolu ñu xam ci ñoom rek wóor na ne loolu rek moo nekk ci soxna si ndax xam ngeen ne li ko war a baaxoo wax wow moom ci kong rek lay am doon doomi sëñ Tuubaa doy na lépp doy na gépp karaama doy na gépp baax doy na gépp yiw kon jërul ñu di ca waxaat lenn loo xam ne luñ cay ñambaas la mbaa luñ cee yokk mbaa luñ cee dolli doomu Sëriñ Tuubaa la mat na doomu Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ku matul doom ci moom matoo ko njaboot du la def ci boppam du la tànn jaaral la ci boppam kon nag loolu nga xam ne moom la bokkam yu baax yi am noonee ñu ko amee woon noonu la ko ame fekkunu ko fi waaye xam nañu na nga xam noonu la meloon loolu yàlla Sëriñ Tuubaa la ko defal defal ko ci góor defal ko ci jigéen ndax du doomu Sëriñ tubaa xàmme wuñ ci ku góor ka ak ku jigéen ka xam nañ ne ñoom ñëpp yàlla suñu borom tabaaraka wa taala moo leen defar jaay leen ci loxo Sëriñ ñu ñëw ci àdduna àndaale mat gi nga xam ne moom la ñu war a àndaale kon loolu tax na ba soxna si du ñu def lu dul rek yàlla taastu ci barkeem foofee mu nekk mu dolli ko ay xéewal ñaan yi nga xam ne moom la ko njabootam bu baax gi di defal bis yu mel bis yu mel nii yàlla nangu lépp te dolli te yo yónnee ko ko foofee mu nekk tey ca ba sax di ñaanal soxna ay bi ni ñu ko waxee léegi di xam ne ni itam sëñ Muntaxa bis bi yitteel na ko lool neex na ko lool bu sañoon moo fi teew wala bu ko mënut itam njaboot gi fa teew njaboot suñ bisiw gépp teew fi tey ngir gën a firndeel eh, mbégte mi nga xam ne am na ko ci bis bi gën a firndeel itam doole jaxasoo ak jegeñaat jege jegeyanteel bi nga xam ne lu mel nii dana ko jegeyanteel diggante këri sëñ Tuubaa yi ndax ñun ñëpp nangu nañ ne kër sëñ Tuubaa genn la waaye nag lu mel nii day saayir soo xam ne saayir su leer la su mën a defar ak bokk la saayir su baax la soo xamante ne ku ca xool ña nga xam ne ñoo ko mënul mbaa amuñu ko it buñ ca xoolee ñu mën a defar seenu bokk daañu daañu ca mën a roy bu baax a baax kon noo ngi dellu di sant bokk yi ñu àndal yëpp ndax ñoom ñëpp kenn ku ne bi nga déggee ndigalal sëriñ bi da ngaa bàyyi li nga jàppoon lépp daal di ñëw ànd ak ñun ña nga xam ne ñoo ko def ña ngi ko ànd seen i ñëw na te am nañ ci lu leen métti lool di sant ñu ñu fu fekk itam ndax léggéey bi benn la ñun moo war a dalal gan ñi waaye teewul seen kem kattan def nañ ko ci jéem a teral bi ñu déggee nañ njabootu sëñ Muntaxa ñëw na wala ña sëñ Muntaxa yónni ñëw nañu lépp lu ñu ci mën ci teral leen ak taxawu leen def nañ ko sonn ci seen kem kàttan kon ñoom itam ñi leen xamal ne loolu waru leen ci woon ndax liggéey bi noo ko bokk te dañ ko waroon a lan ca la leen ca war rek moo moo moo moo nu ca moo moo nu ca war kon nag noo ngi dellu yeesal sant mbokki taalibe yëpp di ñaan suñu borom soxna si ak njaboot gi yàgg koo def yàgg koo fekkee lépp loo xam ne itam moom lañ ci soxla yàlla defal leen ko ci na xam ne noonu lañ ko bëggee ñoo ngi sant njaboot gi di sant taalibe yi di doole sant sëriñ Cheikh di ko siyaar di ko ñaanal bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yu tedd yi gannaaw bu ma leen nuyoo ndokkeel leen sant leen bu baax xanaa waxtu yi mel na ne xat na yitte yi bari na tàng na xam dañoo bëggoon fu timis jote rek jataay bi jeex ñu waajal waxtu bi euh, bu ko defee moo tax xam naa am yoo xam ne soxna si dañu ko daa digal ngir ñu jotal ko mu di yóbbal boo xam ne ay soññee lay doon yu mu bëggoon a wax euh, diggante nu wax ko euh, jotal ko mbokki jullit yi loolu xam naa dañuy bàyyi ba ëllëg ca ngoon bu soob yàlla ñu mën koo def boo ko defee moo ànd ak euh, film yi nga xam ne jël nañ ko ci màggal gi ndax loolu rek la waxtu wi di maye bu ko defee su boobaa nag ca lañuy ñuy jotale sax cant yi kilifa yi fi ñëw. ak mbokk yi ak wëllër yëpp ca lañ koy yaatal ni ñu ko bëggee insha allah bu ko defee kon dañuy tënk rek li mënut a ñàkk ci ay cant eh, gannaaw bu nu jëlee nuyoo bi jiital ci Cheikh Sidi Muxtaar alxalifatul am li taifatil muridiya ñaanal ko bu baax sun borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba mu eggale mbooleem naa li nga xam ne sémm na ko ci liggéeyal Serigne Touba muy lislaam sant ko bu baax jotal ko sant ko soxna si ci ni nga xamee ne bis bi yitteel na ko barki démb rek la mu tàggoog moom euh, mu wax wax ju am solo ci bis bi ci kanamu Serigne Cheikh Thioro ak yeneen mbokki taalibe ñu koy sant bu baax a baax di sant Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne bis bi bi ko ko soxna si tuddee ñor na ko lool yittewoo na ko lool big na ci lool ba digal njaboot gépp ñu taxaw ci jàpp ci jàpp na ci bu baax a baax jëf ci jëf ju rëy yaboon njaboot gi yëpp rek daanaka dafa mel ne daaru minam kenn de fa euh, ndax sëñ Koso mi ngi nii toog ànd ak sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ euh, Moustapha Basir ànd ak sëriñ Bas Bachir moom sëriñ Abdul Hakim ànd ak sëriñ Xaadi Mbàkke moom soxna Xadi moom sëriñ Bachir ànd ànd ak sëriñ Lamp moom soxna Xadi moom sëriñ Mouhamadul Bachir sëriñ Abdul Hakim moom sëriñ sëriñ Abdul Ahad tam ñëw na ak waa kër sëriñ Mountakha itam ñu bari ñëw nañu ci xam naa ku leen di lim sax waxtu wi du ko maye waaye lépp dañ ko gën a yaatal kon sëriñ Koso ñu ngi lay ñu ngi teg sa loxo cant soxna si ak ñaanam. bu muy jëmale ci seex Muhammadul Muntaxa moom seex Muhammadul Basiir di ko jëmale ci mbooleem njabootam ndax yéen itam bi nga xamee ne jox na leen ndigal ngeen taxaw ci dangeen koo def ba defe ko noo xam ne yaakaar naa sax xëy na seenoo ko woon noonu kon nag mu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal euh, ni ko sëñ Moustapha Abdoul Khadir waxe rek moom euh, sëñ Touba rek moo ko ñor lépp lu jëm sëriñ Touba rek da koo ñor moo xam dañ ko cëral sëriñ Mouhamadul Basiir cëral lañu ko cërale gi nag day loo xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir da ko moom ndax soxna si nga xam ne moom lañuy ñuy màggal di ko fàttaliku day koo xam ne suñu borom da koo defoon mbokkam yépp bëgg ko ndax soxna Ayda ci boppam eh, mi ngi may nettali ne ma ku ñuy wax soxna Laaliya Mbàkke nga xam ne eh, soxna Serigne Touba moo ko boole woon ak soxna Aminta Bousso soxna Laalie moomu soxna Aminta Bousso mos na ko booleeg soxna Ayda ne ko yóbbul ma ko ci sëriñ Basiiru euh, boo ma nga tiib euh, ne mu de nijaay mu nuy jigu nee na ba mu ba mu demee sëriñ Basiiru da koy xool ba yàgg mu ne ko yow de sa yaay doon sama xarit loolu kon nag loola daa mel ne su lii amee kon day mel ne fedd loolu rek lay doon kon nag soxna si kon mu ngi leen sant bu baax di leen ñaanal njaboot gi daal kenn desut mu ngi sant euh, soxna Khady moom euh, sëriñ Mouhamadul Basir taxaw na ci bis bi taxawaay bu mat sëkk ak soxna Soda moom Cheikh Mouhamadul Moustapha Basir euh, ni ma ko waxee rek danañ ko gën a yaatal bu soobee yàlla jotal lépp ndax ñoom ñëpp ci taxaw kër gi ñëpp a ci taxaw kon nag dañuy bàyyi ba ëllëg rek ñu yaatal ko insha allah so mun munta ñàkk sant itam soxna Xadijatu moom Seex Muhammadul Moustapha mi fi nekk te bis bi ñor ko lool waa këram ñi sa ci moom nee nañ daanaka lu mat weer a ngi nii woo xam ne màggal gi rek lay waxtaane ku egsi rek mu ne ko mbaa yaa ngi waajal sama màggalu bàjjan bi kon bis bi ñor na ko lool mi ngi koy mi ngi koy ñaanal baax mu gën fee yàgg di kiiraayam di di ko sant sant njabootam gépp di sant itam soxna Xadijatu moom sëriñ Mouhamadul Fadil euh, moom it ab taxawaayam lool ak soxna Xadi moom sëriñ Mouhamadou Lamine Baara euh, cant yi daal li ma ko waxee rek daanaka ci yoonu murit yépp la jëm ndax euh, yoonu murit kër gu ne rek am na ko fa jógee ñëw biig ba tey kon nag bu soobee yàlla daañu ko yaatal lépp dañ ko jotal képp ku fi egsi rek bu soobee yàlla daañu ko jotal jotal cant yi ak ñaan yi ndax kat yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne man laa yashkuri naasa lam yashkuri laaha wala eh, nit ñi doo sant doo sant yàlla xabdi lam yashkur ni isa lam yashkur man ajraytu eh, nihmati ala yadihi sama jaam du ma sant su fekkente ne santul ki ma jaarale sama xéewal ci moom kon nag moo tax faw cant yi mu danañ ko jotal incha allah ni mu ko diggee de incha allah boole ci soññee yi nga xam ne dañ ko daa def wax mu na ñuy tànn lu am njëriñ yoo xam ne bëgguñ dañuy bëgg mu ànd ak màggal gi di ci ab yóbbal euh, kon nag loolu la waxoon ne nañ ko jottali rek ci ay kàddu muy ay kàddu jàpp yoo xam dañ ko fas yéene yaatal insha allah euh, bis bi nag ki nga xam ne moom lañu ko tuddee muy Cheikh Mouhamadul Basir day koo xam ne dafa amoon dafa am xaas ci Serigne tubaa bari ñëpp teg seen bët. ndax moom rek mooy doomi Serigne Touba joo xam ne dëkk naa moom diir bi dëkk moom lu ma fukki at ak juróom ci ñaareem di wax ak moom mu di ko nettali mu xam ci moom lu wér li mu moo tax sax doo ko may sax mu man cee mu man cee nekk marji boo xam ne ku bëgg a xam lu wér ci siñ bi ci ci ci moom ngay dellu ndax soo demee ci menoonul baaxil xadim ni ma ko tërale nga xam ne melo siñ bi yëpp da koo lë lëkkaleeg maqaamaatul yaqiin maqaama bu mu ca dugg rek wax ci Sëriñ Tuubaa lu kiimaane ku ca dem rek da nga xam ne moom mooy ji dëgg-dëgg ci Sëriñ Tuubaa ndax soo demee sax daa gis am fu muy waxee naan Sëriñ Tuubaa am na bis euh, mu ne euh, man de képp koo xam ne danga may seet ci xar baax yi ñuy nettali ci man naan moo moo sànni woon ca der ba ca géej ga julli wala moom lañ boole woon ak nag wa euh, ci mbedd mu xat nag wa bi mu fa fëxee rek dafa naaw mel ne ku ami laaf ba fi nii wax nañ ne euh, wax nañ ne mi ngi naaw ba tey jaww ji ndax ki nga xam ne mooy nettali xarbaaxi Serigne Touba yi euh, naar naar bu ñoo xam Abdullah Abdou ñu ngi koy wax mi euh, euh, ngi koy mi ngi koy ne Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi ngi koy nettali ci Irwa am na dim sëñ Basiiru ne képp koo xam ne sëñ Basiiru ne Serigne Touba nee ne képp koo xam ne yaa ngi may seet ci ñu ne yow lañ boole woon ak gaynde ga mu ñëw waaf ci sa kanam ko na nga xam ne yow de yaay ki ma gën a umpale ci nit ñi dane foofu ajhalu naasi bii daal di wax ne man de damay ab jaam boo xam ne sunu borom moo ma sàkk bi mu ma sàkkee itam wutalut ci man kenn aw yoon daal di wax ne ni nga xamee ni wutalut ci man kenn aw yoon nag noonu la wutalewut kenn aw yoon ci xam innama ana habdun tawallaani rabbi walam yajal li ahadin alayya sabilan fa ka annama lam yajal li ahadin li ahadin sabilan ila mahrifati ni nga xamee ne muyut ci man kenn am ci man aw yoon noonu noonu noonu la muyut kenn ci ci yoon woo xam da ci jaar ba xam moo tax kon Serigne Touba du ku ñuy xam moo tax mu ne lii xaadama baana wa ma laysa yabi may na ma loo xam ne feeñ na waaye am loo xam ne du feeñ mukk inna allazi min al ilahi hustu xaaba an il kawni wa fustu li ma làq ci sama borom ump na mindeef mindeef mënu koo xam kon nag sëriñ Touba du ku ñuy jée xam jéem a xam ku ñuy topp la rek topp ay ndigalam bàyyi ay tereem sax ci lim bëgg Euh, kon Cheikh Mouhamadou Bassir moom kon euh, ku ñu war a sant la ndax euh, leer na lu bare bare bare bare ci yoonu Serigne Touba ak doxiinam loo xam ne ku ca sóobu rek danga xam lool fi ngay set teg sa tànk kooku nag mooy ki nga xam ne moom lañ jagle tey jii bis bi kon nag am naa yaakaar ci ne ku fi ñëw rek war ngaa rafet njortu ndax bis boo xam ne ñaari doomi Serigne Touba ñoo ko séq te kenn ku ci ne rek di tànneef boo xam ne suñu borom may na la may yoo xam ne ñëpp a ci xaj kon ku ñëw ci ab bisam taxaw ci sa xel war naa dal sa ñor war naa rafet euh, kon nag euh, xam naa loolu lañu woon dañ koy tënk rek ci ay cant ak i euh, cant ak i ñaan di ko di di di di di teg ak cant nag Euh, boo xam ne mooy koy beral Sëriñ Sidi Mbàkke mi moom Cheikh Abdoul Khadir di teg ci moom ak cant cant bu mat sëkk euh, di ko ñaan mu tegal ñu ko ci loxol Serigne Moustapha mi fi jóge léegi mu teg ci loxol Serigne Cheikh mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Abdoul Khadir ak di jàll ba ci mu jàll nag ba ci njaboot gi yëpp euh, ci seen yitte ak seen taxawaay Serigne Cheikh moom léegi la fi jóge ñoom ñëpp daal soxna Aida mi ngi leen sant bu baax a baax a baax a euh, wax ji nag maa ngi ko wax ci turu Serigne Cheikh mi di sama kilifa di sama mag di sama kilifa ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal bu baax a baax a baax di sant mbooleem njaboot gi kilifa yëpp rek muy njabootu soxna Aminta Bousso gépp di sant euh, Serigne Abo Mbacke moom soxna May Mouratoul Kubra ci ab taxawaayam bu rafet. Euh, sëñ Mbacke moom sëñ Moustapha May ak sëñ Cheikh Abdoulah euh, Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mais nga xam ne mooy euh, moo fi moo moo toog tey jiit jataayu sëriñ Hamdi Mbacke sëñ dan ak sëñ Mor moom sëriñ Cheikh May xam naa ni ma ko waxee woon rek su ma duggee ci dugg ci sant mbokk yi rek daanaka waxtu yi duna ko duna ko moy waaye mbokki Mbacke yeeg mosul ñi fi ñëw yëpp soob la bu subaa daañu ko yaatal ak waa Gede moo tax daal damay damay yem ci lii rek ba ëllëg bu soobee yàlla danañ ko jotal jotal koo xam ne dana egg fépp insha allah ginnaaw waxtu wi xat na nag ñu ngi sant ñëpp daal di sant di gërëm ñëpp di sant mbokki bi yi nga xam ne ñoo jóge fu ne ci réew mi ñëw taxaw ci bis bu baax jàpp ci ak kóllëre yi ak ak mbokk yi ñëpp daal ñu ngi leen di sant bu baax a baax bu soobee yàlla bu subaa danañ ko yaatal xam naa dañuy jox sëriñ bi rek mu ñaan bu ko defee ñu mën a waxtu wi xam naa daanaka jot na bu soobee yàlla dinañ gën a yaatal li ci des lépp incha li li nekk suñu xol daal dañ bëgg koo génne euh, waxtu yu mayuñu ko euh, te xam naa ne suñu amoon ak yaatu duñ ko mën waaye kon it suñu waxtu yu mayoon daal daañ ci daañ ci am luñ ci génne kon nag ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di naan suñu fekkee fekkeloo lu waat ko ay yoon yoon ci jàmm ak yokk bu baax a baax a baax te waxtu wi ñëw gë fekk ñëpp fekkuñ ci képp ku fi ñëw daal ñu ngi am suñu borom defal la fajug aajo defal la ci ak njëggal yërmande ak yokk zahir ak baatin jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi kon lii mooy li nga xam ne groupe Istikhama jëlaloon na leen ko ci bis bu tedd bi nga xam ne muy bisub soxna Xadijatu Mbàkke bintu Xaadim Rasool ñu doon ko amal ci kër Serigne Mbacke ma waaye di ko amal ci njiitu Serigne Cheikh Mbacke Fadiama waaye nag di ko amal ci coordonnateur bi nga xam ne moom la tegoon liggéey bépp ci loxoom muy sëriñ Abdou Lahad Mbacké Fadiama te mu def liggéey bi mu def ko liggéey bu sell boo xam ne bu aw yoon loolee ñu ngi leen koy ñaanal suñu borom njabootu sëñ Mbacké Fadiama gi suñu borom yàggal leen fi te wéral leen te àggale seen yéene ci li nga xam ne bëgg nañ ko liggéeyal soxna si mu defal leen ci lu kawe seen jot di ñaanal soxna bu Bousso bu baax suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal njabootu sëriñ gépp di leen jox dig daje di leen xamal ne kon lii leen leen andi woon di ñaanal ñëpp képp koo xam ne bis teew nga fi wala nga yónnee fi suñu borom defal la riddan wa rahmatan di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.